am na ko wax ne juróom ñi daal matuñu rusa sonnal sonnal leen mëtta rus ki ci jëkk mooy buuru diine bu maandu ñaareel ba boroom xam-xam buy jëfe xam-xam ba di ca teete jaami yàlla yi ñetteel ba sa waajur ñeenteel ba gan juróomeel ba fas moom ci yooyu jamono dañ ko daan yittewoo lool ndax dañ daa dem ci toolu xare ba jox seen bakkan yàlla te booba nag fas moom mënu ci woon a ñàkk moo ëpp ci lañu daan jëfandikoo ca xeeti jihaad yooyee lu bokkut ak loolu nag fas moom yàllaa ko teral muy lu baax a baax ba suñ jamono jin tollu sax buñ xoolaatee gis rekk fas ni ko yàlla fonke ak fa mu ko teg